jërë ngeen jëf seen ànd ak seen seen youtube tas info wi leen di ànd ak ñun ci lépp loo xamante ne jëm na ci information ci réew mi kii bi te réew naka noonu lii jëm ci wàllum wér-gu-yaram te kii di Serigne Mor Asta Touré di ñu ko baaxit ñu wéyale ak moom ci waxtaan yi nga xamante ne mi ngi koy amal ci ay laaj ki tontu yoo nga xamante ne saa su ne moo ngi koy def ngir di ci laabire ñenn ñi ci lu jëm ci seen wàllum wér gu tey jii te eh, ñëwaat na ci yenn te ci ay eh, tawat yoo xam te ne dal na ji indi ay leeral naka noonu ay tegtal yoo xam te ne ku ca topp da nga ca gis ak tan lu rëy rëy tey naka ñu ñëwaat beneen yoon ci tuur ndox yu bëri kee ci aju loole lépp daal de ci ñëw ci ay laaj ak tontu yoo xam te ne daal nañ koy amal ñu ànd ak moom eh, bala ñoo ñëw ci commentaire bi kon bisimilah Serigne Mor ci li nga xam ne moo di question réponse bi waaw man de ñaari question la amoon rek sama benn kilifa moo ma koy laaj loo. bisimilah. daal moom bu xëyee bu xëyee bañ ay boori tàkkusaan daal. Mhm. am sax mu bari da koy sonal daal noonu ba noonu la koy yendoo daanaka moom lay fanaan moom ba suba mhm. wàcc ci tàkkusaan. Mhm. moo doon laaj ba xam loolu lan moo ko waral ak nee na xool bi day fuur lu bari. xool bari ñaari question yi daal la moo ko léegi dinaa la ko laajal. waaw beneen question bi mooy bu tànk ba gi commencé seet. mais mm, mm. saw lu bëree bëri xam nga loolu jàngoro jàngoro joo xam ne nit ñi dafa am nit ñoo bu maanaam li seen système yaram di doxee ci bëccëg gi bokkut ak bu ngoon jotee di xasee jot. léegi seen changement système yaram boobu nag bu fekkee ñu am lu ñuy jëfandikoo lu bari benn dosage mën naa indi loolu maanaam bu fekkee day naan kafe gu bari loolu mën na koo def. fekkee da ko fekk muy jëfandikoo ak kafe gu bari wala war gu bari man naa tax bu ngoon xasee jot système bi ni mu doon liggéeyee ci bëgg day sensé ci saa waaye du nit ñëpp nag ay benn benn lay doon ci nit ñi sensé mhm. boobu muy sensé nag te rein yi nga xam ne ñoo yóbbaale tuur ndox nga xam ne seconde bu nekk ñaar fukki seconde yu nekk dañuy toog benn toog su caféine bi baree ci ñoom dañuy mujj rek bàyyi bu waxtu xasee jot régime bi day tàmbalee sensé dañuy bàyyi lépp mu mu ba ci gën a comme du sensé. wala régime bi day am doole moo tax du feeñ ci moom waaye bu tëkkoon xas lëkkoon xasee jot nag sidit yëpp ay bàyyi bu xasee bàyyi nag ndox mi day wàcc rek dootu sedd dara loolu mooy waral ñaar mu muy tuur waxtu muy tuur ndox mu baree bari benn mi ngi jëfandikoo kafe gu bari wa am na leneen lu muy dunde loo xamee ne day sensé système yaram wi ndax nit bis bi ñaar rek la bëccëg guddi bëccëg guddi gi mi ngi tàmbalee daa bu tëkkoon tëkku jot rek guddi la daanaka donte la dëmagul suñu xasee julli suba ba pare bëccëg bëccëg tàmmeel doonte euh, leeragul foofu la changement bi nekk léegi nag dafa am xeeti ñam yoo xam bu ko nit kiy jël te fekk yaramam dafa bokk ci système boobu mooy waral tuur ndox bu bari boobu ci waxtu woowu waaye su boobaa nag su fekkee daa bëgg mu deñ dafa am ay xeeti ñam yoo xam moom lay jëfandikoo waaye na seet moom tamit ni mu dund ba noppi bu fekkee mi ngi naan saar boo xam dafa bari dosage mën na nekk café mën na nekk leneen mën na nekk sax saaru si wala leneen ndax dafa am xeeti naa ne boo koy naan day ratt ndox mi da koy ratt di ko génne bu ko dajalee na ba waxtu woowu nag comme organisme yaram bi sensé na mu bàyyi ko mu wàcc waaw loolu nag xam naa comme gisuma ko mënuma koo laaj waaye boo ko mënee laaj mu xam ba xam lan la. moom kay mi dëgg dëgg waaw kay moom yan xeetu naan lay jëfandikoo. sama sama benn papa la. Ah, koy laajee ba xam yan xeetu naan lay jëfandikoo. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah lay sant di la ñaanal yàlla dafa ñëw rek dëkk mu di moo dikki mu ni dugg nga ma ni xaaral jox ma ko di la siyaare di la ah, ñaanal yàlla ci jot a dégg yàlla yàlla yàlla yàlla yokk xam-xam bi te barkeel ko bi jaay dem sa amin amin amin amin ñu bokk ñu ñëpp amin amin damay daal mooy bu bu timis xasee jot mhm. damay tuur damay tuur ndox di tuur ndox ba suba mais bu suba gi mhm. rëccee daanaka jàppal suba mhm. li mën naa cee julli tisbaar du ma tuur ndox waaw yenn saa yi sax mën naa cee julli tàkkusaan waaye bu timis xasee jot daal damay dafa naa mm-hmm. ndox mm-hmm. ba jant fenk mm-hmm. dafa am ay xeetu naan yooyu jëfandikoo ñaareel bi den ko déedéet wala jëw du déedéet café daal laa waa koy commencé naan sax bi ñuy dugg ci koor gee yooyu waaye man ñaare bu ñu génnee koor lu wala lu may kër ci kafe teel daal danaa koy faral di naan boo dee ma sax li ma a moo tax ma su ma ko naanee mu kii moo tax may naan yenn moo tax naan café gi daal ma waaye bu ma amee tee naa li nga na juróom benn fukk waaw romb na juróom benn fukk ah, moo lay dal mooy bu ñu xasee àgg dafa am ñoom bu ñu xasee àgg ci classe bu ñu xasee romb war naa am war naa ah, ah, waaw sa sa sa mu yaram moo sens rek loolu day am ci nit ñi bu ñu xasee romb ñeent fukk wala juróom fukk seen risi mooy sensé maanaam tuur ndox bu di leen di yomb nit ñi dañoo dañoo bëgg ay niveau kenn ku nekk ak ñim lay dale waaye da ngay wut euh, da ngay wut euh, xob yi wëtteen boo mënee am xob yi baax na boo mënee am doom yi baax na doom yi sax moo gën ak manam ak xasum gi gis wala reni gi gis lo am ci ñom ñaar yoy dang koy fejate ba mok ngay baxal ndox par kaas diko jël bu ngon jotee nga jël kaas bele nga bo xey suba jël ci kaas manam xobi wëttéen yi boo ko amee baax na boo amee doomi wëttéen gën ak xasum gi gis yoy ngay bolé nak fejat fejate ko jëru sa debbu bu ba xaw mok rek baxna nga ciof ci def ci kaas baxal ndox ba mu bax rek nga sotti ci di ko jël kaas suba di ko jël kaas ngoon waaw ah, di ko jël kaas suba di ko jël kaas ngoon bu fekkente te man lan lay saafal gage ginaar wala lu mel ni euh, féexu ginaar yi ba tey baax na ci torop waaw wala fekkee man nga man nga am man bu fekkee man nga am xobi salaan ba tey baax na kon xanaa laaj bi balaa balaa ngaa toll ñaareelu laaj bi ñu ñaa ñu nga ñaanal ma yàlla ma ñibbi si ba man koo amee foofu da maa ngi ci àll maa ngi maa ngi Argentine ah alhamdulilah alhamdulilah yàlla yàlla teg yoonu jàmm ak tawféex. fasa fasaleel ma ko kon ma ñëw ak jàmm di di ko jëfandikoo. incha allahu rabbi. incha allahu rabbi waaw fii hmm. ñaari aay yooyu ma doon wax te mën nañu la ko bindal ba tey bokk na ci yi faj xeeti feebar yooyu nga xam ne yi xaw a naqaree ci wàllu garab yi. ñaareel mooy xol bi fuur. Hmm. xol bi day fuur lu bari. maanaam xol bi day fuur hmm. xol biy fuur dangay ngay wut doomi naajo doom yi hmm? maanaam xol biy fuur da ngay wut doomi naajo yi doom yi boo amee doomi naajo moom ngay am ngëb rek moom ngay def ci kaas baxal ndox sotti ci bu seddee nga naan ah, doomi naajo moom dana mën a am fii a doomi naajo yi nga wut nag da ngay ngëb sa ngëb ba fees rek sotti ci kaas baxal ndox bam bax nga sotti ci upp bam sedd rek nga nan ndox mi alhamdulillah ngi noonu loolu mooy waxtaan waxam xamante ni Serigne Maratou Touré dal ne koy amal jéemale ko ci lenn ci ay question réponse dim ci wàllum wér ci yaram kon mi ngi noonu Serigne Mor mi ngi wéy li nga xam ne moo di laaj tontu yi nga xam ne mi ngi koy amal wéy leen di ànd ak ñun ngir man dem lépp loo xam ne jëm na ci ay waxtaan yoo xam ne kii di Serigne Mor mi ngi ñu koy baaxee di ngeen ko am man dem ci seen seen YouTube tas info ci saa su nekk fii rek la di leen abonné ngir man de am lépp loom te ne jëm na ci waxtaan yooyu yëpp rek naka noonu di partager ak it di ci defi seen ngir information yi man daal de law ci ñeneen ak ñeneen ndaxte mbir mi comme ñëpp ci bokk fa it ñu koy partager ngir ñeneen ñi nga xamante ne ña ngi koy soxla ñoom itam mën a àgg ci ñoom ci loo xamante ne du leen sonal te it doon am benn gàllankoor ci mën a suivre li nga xamante ne moo di vidéo